mbokk yi le grand combat de la soirée Jam Production Jam Production ak Fils de Balla arbitre sifflé na 19 heures 19 minutes la arbitre sifflé Gora Sock dóor na Gora Sock ko ci xeex maa dóor mu daanu du fi am maa dóor mu daanu du fi am Fils de Balla bi ngi avancé Fils de Balla xoolal li ngay def Gora Sock avancé na dóor dóor dóor xeex ñaar dañuy xeex par force règlement de compte la c'est le derby parcelle géejewaay attention fii sa Balla Balla Gaye moo ko andi xeex door mu wàcc attention o door mu wàcc xeex am njaay am jëlal am góor a am fiis am góor a am fiis góor am fiis ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi leewtoo ñamante nañ tuuti góor a soog sa Balla attention ñoom ñaar ñu ngi xeex. attention Fils de Balla na. Gora Sock jàpp na ko dóor na attention plaquage attention plaquage ñoom ñaar ñu ngi lewtoo jàppante nañu léegi ñoom ñaar dañuy xeex xeex nañu bëre nañu xeex nañu bëre nañu ñoom ñaar. ñoom ñaar xeex nañu bëri nañu jàppante nañu ñoom ñaar ña ngay mbapat e e door mu daanu wuy sa manday attention fii sa Balla jël na ko daan na ko fii sa jaan na góor sok laa ilaha illallah caxabal na ko daan na ko xeexloo na ko nax na ko daan na ko laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ba ba jël caxabal daan na ko jël bu rëy laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi Balla Gaye dugg na ci biir géew bi oh c'est la désolation Goro Sock dafa désolé ndeysaan quelle surprise quelle déception Balla daan na Gora Sock Fils de Balla daan na Gora Sock coup de tonnerre à l'arène nationale mesdames et messieurs coup de tonnerre à l'arène nationale Gora Sock vient de couper le Fils de Balla il s'incline il s'incline devant son adversaire de Fils de Balla Fils de Balla vient d'appliquer une correction à son adversaire de Gora Sock il pousse son attention vers le sommet de